Macodou Fall maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. voilà Macodou Fall nga nekk président wu euh, collectif national des impactés du terre. Euh, mhm. fi toll nii ba léegi am ngeen lu ngeen di laaj état wu Sénégal lan ngeen di laaj exactement nga expliquer ñu ko largement. waaw ñun lu ñuy laaj Sénégal état du Sénégal mooy li ñu ko doon laaj depuis yàgg na daal parce que vraiment Sénégal bu demee ba am un projet bu mel ni euh, le train express régional bu doon projet bu gën a ngand presque de nos de l'indépendance à nos jours donc ñun ñi nga xam ne ñoo ñoo dëkkoon ci ci tracé bi ñu nangu seede suñu kër jox ko état du Sénégal au moins état bi tamit war na vraiment li nga xam ne tey jii protocole la woon ñu signé ko ak moom war na ko mën a respecté quoi mais on a constaté que depuis que ñu libéré suñu kër yi ba léegi état bi daal ñi ngi daw di daw ñi ngi daw ci ginnaawam daal ñi ngi daw ci ginnaaw état bi parce que respecté wul li nga xam ne waxoon na ko quoi. Eh, te lan la leen waxoon exactement nga expliqué ñu ko ñu xam ko. waa euh, état bi li mu waxoon bëri na. parce que hmm. ci indemnisation yi. état bi waxoon na dina ñu vraiment jox benn site de recasement. au début dafa waxoon Malika ak yi mais finalement dafa changé yóbbu ko fële au niveau de Lac Rose mu jox ñu quarante hectares sur Lac donc ñu constaté ni quarante hectares yi mu jox Lac yi boobu waxoon na en deux mille octobre deux mille vingt deux waroon na fekk ñu jox ñëpp seen parcelle ba pare ginnaaw ba ñu ko aménagé ba mu pare ba mu répondre norme yi ba pare bañ ñu aménagé mais li ñu constaté mooy depuis octobre ba tey jii ñu ngi octobre deux mille vingt ba léegi site bi pareegul. ba léegi li ñu waxoon defaguñ ko joxeguñu kenn kayitu kër amul kenn ku ci jotagum kayitu kër tout ça donc beneen bi mooy état bi tamit daf ñu yoral li ñuy tuddee ay prime de vulnérabilité prime d'accompagnement social ak perte de revenu locatif donc depuis longtemps aussi ñu topp ci di ci daw mais ñu fexe ba jot yooyu nga xam ne ay koppal la ñu war ko jox ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yelloo ñu jox leen ko donc tey jii demoon nañ bay toog ñoom sax ñu ne dinañ ko def dans un mois dans deux mois mais jusqu'à présent état bi mënul fexe ba respecter ses engagements parce que soi-disant je sais pas parce que ñi ñaa ngi daw ci seen ginnaaw donc loolu yëpp mu doon ay mbir yi nga xam ni vraiment ñu ngi koy déplorer quoi ñu ngi koy déplorer. Euh, donc voilà. Euh, terrain yooyu Lac Rose euh, la leen ko état bi utal donc terrain yi. Voilà. disponible na mais finalisation bi moo des wala. Voilà. travaux yi xam nga terrain tamit buñ ko fekkee ni dañ ko bëgg aménager ñu defar ko ñu commencé woon ko yàgg sala yàgg na man mhm. na trois ans presque ñu ko commencé jëm kattanaa ñu commencé ko di ko defar ba instant bi ñu ne woon danañ ko da danañ ko àggali danañ ko def parce que ñoom li ñu joxe woon ci seen table boo xoolee dañ ne aménagement une année rek lay durer depuis presque deux mille deux mille vingt un ba léegi donc aménagement baa ngi dem mais amul progression bu tax ñuy wax donc mu am ay lenteur yu yu yu yu garaaw donc nit ñi jotaguñu aussi seen kayitu kër établir lu leen seen kii parce que il a été question euh, benn réunion bu ñu amoon nag premier ministre Amadou Ba avec euh, DG APIX gouverneur ak les autorités impôts et domaines ak CADAS euh, que nee na woon dina joxe ay titre foncier individuel pour chaque personne affectée par le projet dina leen jox titre foncier individuel mais jusqu'à présent non seulement gisuñu benn titre mais ensuite li ñu constaté fële mooy liggéey bi dafa ralentir carrément boo demee quasiment ci terrain bi doo fa fekk benn nit benn ouvrier buy liggéey presque quasiment te loolu moom vraiment dalul xel dalul xel waaw dalul xel te loolu mooy nii naruñu ñu defar terrain bi nu mu gaawee. Mm. donc euh, loolu tamit problème la te nit ñi vraiment ils souffrent parce que tey jii nga jël ay toj ay kër jàmbur yi nga xam ne ñoom dañu nangu sedde si sa grand projet bu mel ni TER ñu nangu seddee bàyyi seen kër tay la jox la ko yow état état nga digg ni di nga joxe xaalis di nga joxe terrain mënoo fexe ba jox leen terrain mooy lor doomu aadama yooyu d'ailleurs dafa am ay conséquences conséquences yi mooy lan. Mhm. boo xoolee ci xale yi nga xam dañ leen déplacé par le projet ñu bëri jàngatuñu école xale yu ndaw yi ñu bëri amatuñu jàng école parce que seen parents yi dem nañ sax ba amatuñu moyen jigéen ñi nga xam dañ daan daan seen dool di def ay activité économique et tout ça dem nañ ba benn instant mënatuñu mënatuñu subvenir leurs besoins mënatuñu def seen activité carrément suñu paa yi nga xam ne ay personnes de troisième âge dañoo ñafe liggéey ba am kër ak kër nu mu jafe ñoom ay kër mille mètres carrés ci biir ndakaaru kër huit cent mètres carrés ci biir ndakaaru état bi ñëw nangu kër yooyu joxu leen dara ba paa yi commencé di gaañu alors que dañuy njaboot paa yooyu donc te buñu ñu gaañoo li ci xew mooy famille bi day tas parce que ay jugement d'héritier dañuy def ak ay affaires yu mel noonu di dugg ci ay procédure di yéeg tribunal di wàcc donc ñuy dund lu metti le yi di dund te kan moo ko teg état du Sénégal moo leen ko teg état yi tey yi que ñuy def projet bi avant que nit ñi di yëg di di jug donc ñoom dañuy ne woon dinañ respecter ak ak yelleefu doomu aadama yi mais malheureusement respecté wuñu benn ak ak yelleefu doomu aadama ba conséquences yi demee noonu loolu vraiment c'est déplorable te loolu war nañ ko rus sax lu mel ni di xewe ci Sénégal. Hmm. waaw ci vingt et unième siècle encore. Hmm. Euh, voilà léegi bu weesoo terrain yi amul koppar bu ngeen di laaj état wu Sénégal jox na ah, leen. koppar yëpp wala ay prime de vulnérabilité ak euh, prime d'accompagnement social ak perte de revenu locatif yi nga xam ne tey ji tamit. temps yële rek digoon nañ ñi dinañ ñu ko jox mais jusqu'à présent joxe guñ ci dara ñun ñu ngi ciy topp di daw mais ba léegi dara mënu ci génnoon génn rotti ñu jox ko seen i borom. koppar yooyu ñaata la loolu euh, yooyu bëri na parce que boo gisee ci vulnérabilité yi ku nekk war na am un million deux cent ci prime de de vulnérabilité bi un million cinq cent pour accompagnement social bi ak euh, les pertes de revenus locatifs nga xam ne tey jii boo doon louer sa kër. deux cent mille wala trois cent mille par mois dañ koy multiplier par six ñu jox la ko donc loolu c'est de l'argent donc état bi war ñu ko jox mais ba léegi ñi mu ci jox bëriwul te des nombre bu bëri yi nga xam ni jotaguñu waaw. Euh, d'accord léegi yéen euh, actuellement famille wu euh, impacté yi ñaata famille lañu exactement. waaw nous sommes plus de presque trois mille familles. familles nous sommes plus de deux cent cinquante mille personnes. impacté par le projet parce que tey jii boo xoolee fii euh, terre bi euh, kii euh, fi mu jaar mooy de dakaar à à Bargny te boo xoolee ay quartier lëmb jub nañ quartiers yi nga xam ni c'est des quartiers yu peuplés yi nga xam ni dangay gis benn kër ba nga xam ni dafay am cent personnes donc ñooñu ñëpp dañuy impacté par le projet donc suñu nombre moom macha allah dafa consistant bëri nañ macha allah. waaw euh, socialement ngeen ngeen koy dundee naan impact yi parce que ça waaw am na loo see jot metti désolation metti des fois chaque jour bu ñu toogee réunion nit wax la wax ba nga xam ni yow doo xam noo koy fajee jaaxle rek jaaxle parce que paa yaa ngi gaañu di dee parce que sonn nañ di daw ci la nga xam ni état bi moo leen koy yorel donc man dama def moom Sénégal c'est un état de droit mais vraiment fii ak ak yelleef doomu aadama dañ koy salfaañe comme c'est pas possible parce que nit ki la moindre des choses mooy ni tey ji en matière de déplacement involontaire yi dafa am ay processus li ne les manuels opérationnels la banque mondiale am na ko muy le OP 4.12 la BAD am na ko muy le so boo ko liiree da ngay xam ni déplacement dafa am ay normes yu war a suivre ba accès maanaam nit ki bu noo ko déplacé yóbbu ko d'un point à un autre te du du gis boppam ci loolu maam dafa war a gis boppam ci loolu ba nga xam ne du ci am benn problème mais ñun suñu état yi lépp nañ salfaañe lépp nañ salfaañe ba nga xam ne famille yi dañuy gën a ndóol ñii di dee ñii seen doom yi dootuñu jàngati jigéen ñi kenn xamatul amatuñu liggéey amatuñu dara ñu doon ay pauvre maanaam déplacement yi day day day day day day day day day engendrer ay nouveaux pauvres ay nouveaux locataires des propriétés qui sont devenus des locataires ah, maanaam da ngay doon am hmm. sa kër ba mu jigee tu deviens un locataire à cause de qui à cause de l'état du Sénégal te lii c'est très grave Euh, Macodou euh, ah. en fait euh, euh est-ce que euh, nguur gi yëg na problème bi est-ce que yéen a ngi négocier wala est-ce que interpellé ngeen carrément les autorités compétentes par rapport à cette situation. waaw nguur gi yëg na lépp parce que je vous dis que président la république ba nga xam ne tey jii recevoir nañu ñett yoon des fois nga dégg ci conseil des ministres ne dafa jox ay instructions. ba nga xam ne seen autorités yi duñ ko suivre kii euh, maanaam ñi ñi tepp ci moom duñ ko suivre mu joxe ay instruction beneen bi mooy à chaque fois du du romb semaine ba nga xam ni waxuñoo gouverneur wala le DG l'APEX wala yu mel noonu donc ils sont au courant de lépp ils sont au courant ñoom kay da ngay ne lu ñu bëgg def ak li nga xam ni mooy seen kiwu bakkan la ñuy def maanaam respecté ñu ak ak yelleefu doomu aadama yërëmuñu seen population nguur yi ñu yoon yor yërëmuñu seen population boo bëggee dëgg-dëgg parce que tey jii boo xoolee tey jii quand on te montre euh, euh, à la télévision Abdou Khafar Touré buy wane ni xaw ma ban ci ci état bi la bokk ñu aménager ay wan aménagement yooyu balaa ñu koy def ñun dañ njëkk impacté foofu que que que ñooñu ba muy jaay commencé di jaay état buy jaay. alors que état bi mu ngi lool ay milliers de personnes tas ay njaboot rey ay nit ba nga xam ni tey jii yoral leen ay kër joxu leen kër di dem di aménager feneen di ko jox ay ay ay ñu mu leen neex ñi leen neex non loolu c'est contradictoire on a un état ba nga xam ni amul yërmande ci askanam c'est ça le problème loolu mooy dëgg. plan d'action bi. lan ngeen fas yéene def plan d'action bi moom ñun duñu bàyyi. dana leen jaral ñun lu mu leen jaral dana leen koy jaral ñun incha allah le vingt neuf on va se mobiliser on appelle à tout la banlieue toutes les personnes impactées par le projet TER leur sympathie peuple sénégalais bi yëpp sax nañuy woo pour ñu ñëw soutenir ces ces familles la parce que état du Sénégal li ñu li ñuy def nii teguñu ko fenn te li ñu bëgg mooy après le vingt neuf danañ def ay sitting danañ def ay marche bu jaree nag la nga xam ne duñ ko tàggoo te dañ koy improviser à chaque fois que mu neex ñu ñuy voyager ci terre bi wane le monde wane àdduna au niveau national comme international que Sénégal terre bi muy bal balbaloo naan terre terre terre dafa sacrifier ay milliers de personnes pour faire passer son fameux terre te vraiment ces gens-là ils sont dans le désarroi total loolu moom danañ ko wax ak niñ ko façon buñ koy waxee danañ ko wax ba monde bi yëpp dégg ka ba opinion nationale bi yëpp tamit dégg ka ci manifestation bi ñuy def le vingt aussi. Mhm. ñu ngi ciy invité société civile bi yëpp pour ñu ñëw jàppale ñëw ci manifestation bi xam ngeen ni on est à l'approche des élections te élections yi bu ñëwee vraiment bugguñu bugguñu politiser suñu kii beeg yooyu. mais on n'exclut on n'exclut pas encore bu demee ba lii satisfaire ñu ko ñu jëlaat beneen position te lépp nag xeex lay doon ba nga xam ni pour ñu am gain de cause jaral nañu sax xeex ba état bi jóge fi beneen état ñëw defaral ñu régler suñu problème bu ko jaree dinañ ko def incha allah. Hmm. ñu gis ni euh, kon aussi euh, ñi nga xamante ne ñooy militants des droits de l'homme ñu ngi leen di soutenir ci xeex bi. Ah, waa ñoom ñu ngi leen di soutenir de tout temps vraiment doon nañ jàpp ci te ci ci ci xeex bi parce que xam nañ ni li ñu def jaaduwul quand on parle un état de droit dafa am yoon dafa am lu ñu war a jaarale doomu aadama yi maa ngi fàttalu ko Kabore ba mu ñëwee fii di visite ci terre bi donc Macky Sall doon ko présenter affaire matériel bi ak projet bi nu ñu koy defee tout ça moom dafa ne en tant que président tout ça c'est important mais le capital humain est plus important maanaam euh, nit ñi bakkan yi moo gën a am solo te ils ont sacrifié des vies pour faire passer cette terre là alors que ba instant bi may wax ak yow nii état bi vraiment jéemul effort pour mën a pour mën a rectifier li mu def déjà dégâts yaa ngi fi dégâts yaa ngi fi toog mais ñu ngi ci seen priorité feneen mais lu mu leen jaral ñun dañu koy jaral. voilà ñoom lu mu leen jaral ñun dañu koy jaral. parce que gënuñu ñu fi juddu gënuñu fi dëkk gënuñu ñu xam dëkk bi nu mu demee. te ñun nous sommes d'honnêtes citoyens ñu liggéey ba gañee seen ñaq seen i waajur tabax seen kër sans sàcc sans dara donc ñu nar leen sacrifier loolu loolu on va se danañ xeex nag ba am gain de cause incha allah. voilà Macodou Fall ñuy fàttali ni yow yaay président du collectif national des impactés du TER merci beaucoup.